bërëb bi ku ko gis ak ñi ñu ci fekk lee may gis ne leen rafet na lool ci jamono tàngoor bi ndakaaru lii rek lañu am mun a ñëw xamaana ñëpp amuñu doole boo xam ne mun nañ taal tilim journée bi yëpp bu ñëwee nag toog gis ni bërëb bi yépp nag lu ko doolee fële ci gannaaw ba fu mu sësi li ko doolee ci kaw tali bi ba ci suuf dagg nañ ko def ko lotissement ba jox ko ay nit li muy firndeel mooy buñ ci jógul fi leeg ay fan kenn dootul mun a am accès ci bërëb bi fii nii ñu ngi ko def novembre novembre 2023 xanaa ku yor nguur di dagg di dagg di ñu naa la li ngay dagg ëpp na ba mu des ñaari weer wala ñetti weer nga war a dem rawati nag bërëb bu mel nii nga war a maanu nag ba ko fa ñii ñu jox leen cinq mille mètres carrés ñii trois mille mètres carrés ñii deux mille cinq cent mètres carrés ak yu mel noonu muy lu doy waar ndax fii en principe ci domaine public maritime bi la bokk domaine public maritime nag bul laal la tudd même procédure yi nga koy jaar pour déclasser ko sax compliqué na compliqué boo xam ne waroo ko mën a laal lañ ca bëgg a wax ak sénégalais yi mooy ni ñu yore woon Sénégal ñaaw na ko ku ñaaw yëpp la ñu digganteeg Sénégalais mooy Sénégal dañ ko delloo ci loxo Sénégalais yi.